moom ba ma <laughs> man daal xam naa ni wéet naa ci sama saal <laughs> di reetaan sama bopp. <laughs> yàlla la bàyyil noonu rek mu seet bi seex bañ mu am lu mu wax. baax bàyyi naa te comme instant dañoo nekk ci semaine Ligue des champions. Mhm. defante rek. Ah, man de du man ak yow man nag ci Cheikh laa far de moom xam nga loolu. man de moom ci Cheikh laa a waaw borom 5000 décembre rek xeex ak borom 15000 <laughs> ah trois fois. dañoo <laughs> wax ak benn dugg rek. loolu xam tontu li xam naa lan la. on verra Euh, dañuy jàll rapidement si sunu actu commenté euh, on va parler euh, Cheikh Diagne on va parler de Amadou Ba qui sort de sa niche Sonko le défi autour d'un débat public ki sëñ Amadou génn am ay kàddu yu mu wax ki sëñ Sonko aussi tam def post su sa page Facebook am ay tontu yu mu amal ba ni ko na neex voilà nañ nañ jàkkaarloo un débat public ñu ñu ñu ñu waxtaan on va parler Cheikh. mu ñu war a wax bu ñu waxee dañoo war a wax ñu waxul dañoo war wax parce que ces temps yëpp boo xoolee c'était en quelque sorte benn dualité entre Ousmane Sonko ak Bougane Gueye Dany heureusement semaine bii nii wala à partir de démb gis nañ ki nga xam ne moom mooy Amadou Ba mu ñëw mën a def si bokk donc actuellement on parle que de Ousmane Sonko Amadou Ba c'est bien c'est en loolu mooy dund démocratie sénégalaise parce que bu Ousmane Sonko bu Amadou Ba génnee ne dafay tontu Sonko. quelques minutes après avant même euh, Amadou Ba di terminer sa conférence de presse ñu gis Ousmane Sonko def benn tweet di ko interpeller ñu ñëw ci benn débat public loolu mooy charme démocratie sénégalais te loolu mooy dundal li nga xam ne moom mooy démocratie gis nga euh, Amadou Ba Ousmane Sonko Bougane Khalifa Sall Bart en dehors de leur connotation politique ñoom ñëpp ay sénégalais lañ te yaakaar nañ ne am na fu réew toll war nañ mën a génn toog waxtaan wax ak sénégalais yi ku nekk wax li nga xalaat lii ak lii ak lii lépp ñu wax ko dans le respect ñu wax ko ci yar ñu wax ko ci teggin parce que euh, gis nga Amadou Ba def na benn sortie de maison du parti parce que daf doon seeti waa parti socialiste ay alliés lañ toog na waxtaan na ñoom après bi waxtaan bi jeexee dafa def benn point de presse si point de presse boobu nag si la doon tontoo ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko parce que boo xoolee récemment passé Ousmane Sonko bi ñu def conférence de presse avec les membres du dafa accuser Amadou Ba dafa accuser Mamadou Moustapha Ba dafa nekkoon si ancien régime Macky Sall ne dañu falsifier Amadou Ba génn di ko répondre mais man je pense que la réponse de Amadou Ba n'était pas tranchant gis nga Amadou Ba parfois benn problème la am au fait doo xam ndax yow Amadou Ba politicien la doo xam ndax Amadou Ba professeur la. doo xam ndax Amadou Ba wàlliw la. tu comprends pas en fait la posture de Amadou Ba parce que même bu génnee di wax démb déjà xam nga wax dafa am lu ñu tuddee y a le et la forme déjà euh, fond forme bi rek. ce n'est pas adéquat pour un leader politique gis nga bu fekkee dangay ngay seetaan euh, les débats américains booy seetaan Kamala ak Donald Trump souvent seen débat yi ban posture la ñu am posture debout dañuy taxaw si benn chaîne euh, benn mbooloo bu baree baree ba wër leen ñu taxaw si pupitre bi di débattre ngay gis ñuy ñaq di fomp di di joxe euh, au fond quoi Amadou Ba dafa toog si benn fauteuil calme mel ni ku nekk ci saalam ñu jox ko micro mu toog di dindi ay veste au fait déjà posture bi rek dafay wane ni kii impliqué wul à 100 pour cent ci li muy wax te lool daf si am solo il faudra que nit ñi xam ne yow li ngay wax nii da nga si impliqué wu à 100 pour cent li ngay wax ñor na la muy am benn poche mais Amadou Ba en tant que leader politique je pense bi nga xam ne moo xaw Sénégal

amul posture bi sax il n'a même pas la amul fugg bi pour nekk un politicien donc euh, après quelque temps Ousmane Sonko l'a interpellé sur un débat public mais je pense que euh, Ousmane Sonko interpellé Ba si benn débat ku xam posture Ousmane Sonko ku xam fugg Ousmane xam ne bu interpellé Amadou Ba si benn débat débat boobu ça sera bénéfique pour Ousmane Sonko. Amadou Ba bu demee ak Ousmane Sonko débat. Ousmane Sonko va l'écraser là moom c'est la triste réalité daf koy écraser parce que posture yi bokkuñu déjà Ousmane Sonko nga wax jox ko mu wax tontu la du fu la may sax temps bi ngay réfléchir il va l'écraser euh, yoo xam ne bi may nekk inspecteur de impôt a formé des générations génération yooyu ci la Ousmane Sonko bokk ci la Bassirou Diomaye Faye bokk mais il faudra que mu xam ne ñooñu nga xam ne moom moo leen formé woon nekk seen professeur nekkatul professeur on est dans le domaine de la politique nekkatuñu école nekkatuñu ENA nekkatuñu université amatul professeur ak l'élève bu fekkee da nga doon liir euh, da ngay lire euh, comment dire sax euh, l'esclave et son maître l'allégorie de la caverne de Platon l'esclave et son maître bu ñu wax ne l'esclave a fini par dépasser son maître c'est le même cas de figure avec Ousmane Sonko et Amadou Ba l'esclave a dépassé son maître wala l'élève a dépassé actuellement son maître même bu fekkee son maître nekkoon na fi mais actuellement élève moo nekk PM donc Ousmane Sonko faire face à Amadou Ba ce sera uniquement bénéfique à Amadou Ba mais loolu mooy charme démocratie ah, sénégalaise loolu la ñu leen di xaar donc euh, benn défaut nag moo si am wala benn xel ñaar dafa parce que boo déggee Ousmane Sonko moom mooy joxe les termes de référence di ko wax ne ko mën nañ débat si Sénégal mën nañ débat si hydrocarbure mën mën nañ débat si économie mais c' pas Ousmane Sonko di définir les termes de référence bu fekkee dañuy débat Ousmane Sonko moom moo war a joxe terme de référence du Amadou Ba moom mooy joxe terme de référence ñoom des acteurs politiques nañ d' accord ne dinañ mais c' est aux wala c' ñeel ñoom ñooy organiser débat ñoom ñuy wax lan la war a waxtaan parce que les préoccupations des sénégalais sont là nit ñëpp xam nañ ko les sénégalais yi soxla Amadou Ba on l'a accusé de falsifier les chiffres tey bu ñëwoon di débat ak Ousmane Sonko je pense que ñi nga xam ne ñoom ñu animé débat bi dinañ ko laaj euh, chiffres yi ñu la doon tooñ lii ak lii ak lii ak lii nan la demee lii nan la demee lii fan nga ko dul lii fan nga ko dul parce yaa a des dits y a des non dits boo déggee Amadou Ba moo ngi rappelé mu ne de 2019 à 2023 il n'était plus ministre au Sénégal il a parfaitement raison de 2019 ba 2023 nekkatul woon ministre il a été démis de ses fonctions te boo xoolee accusation yu si bare bare bare c' dans cette période là donc moom bu ñëwoon tey dina mën a apporter par des arguments des chiffres yoo xam ne c' est képp koo xam ne wóor na ne amoo xam-xam amoo connaissance vaut mieux se taire parce que gis nga euh, en un moment donné il faudra que nit ñi tamit xam seen bopp soxaluñ koo xam ne day saagaante day xastante wala day ñëw di wax lu ñaaw Amadou Ba ak Ousmane Sonko ñoom ñoo war a débat bu fekkee tous les termes de référence sont prêts euh, lieu bi nga xam ne fa la débat war a amee définir nañ ko qui doit animer le débat quels sont les critères pour nga mën a bokk ci débat yëpp teg nañ ko à côté nga xam ne normal je pense que ñi nga xam ne comme argument saaga lañ am. xastante wax lu ñaaw ñooñu ngir yàlla nañ dem toogee à bàyyi borom xam-xam yu ñu débattre parce que loolu lañ soxla ki nga xam ne am xam-xam ñëw toog ak beneen moromam am na fu ñu leen teg lii lañ xam moo tax ñu teg leen fi ñooñu lañ soxla mais soxlawuñ koo xam ne Amadou Ba war a defal rek Ousmane Sonko rek Amadou Ba sàcc la Amadou Ba waxul dëgg Amadou Ba lii keneen ki génne fee ne ko Ousmane Sonko li mu wax demeewul noonu par ci par là de ces xastante lañ yaakaar saagante lañ yaakaar ngir yàlla nañ bàyyi borom xam-xam yi au moins ñu débattre ñu changer li nga xam ne moom lañ commencé gis ces derniers temps dans réseaux sociaux parce que Sénégal léegi dafa dem ba nga xam ne débat dafi manqué carrément quand on parle débat d'idée amatul wax sa xalaat kii wax ne lii la wax kii wax te ko ci ay chiffres non non on parle personne débat ci nit ñi nag dañ ci sonn Ousmane Sonko Amadou Ba Bart Ba il a am na ay preuve am ne falsifié yooyu ay chiffres na indi preuve yooyu ay chiffres teg si table yi Sonko mi ko accusé na indi ay chiffres moom tamit teg si table loolu lañ soxla donc c' est entre Amadou Ba et Sonko mais du entre militant Pastef du entre militant de Benno Bokk Yaakaar du entre militant de Sàmm Sa Kàddu yooyu noonu militant yi seen yónni nañ toog seetaan nekk ay simples téléspectateurs bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñooy borom xam-xam yi ñuy débattre loolu laa Euh, tout comme Ousmane Sonko tout comme Amadou Ba benn benn vide juridique daf si am bu ma nee vide juridique daf si am booy boo xoolee mooy le président Bassirou Diomaye Faye récemment il a fait sa déclaration de patrimoine bi mu defee déclaration de patrimoine ñi nga xam ne ñoom ñooy les les rapports wala les cours des comptes dañ ko publier mais ce qui est ce qui est un vide juridique bu may wax mooy les ministres concernés wala directeurs ñoom ñëpp bu ñuy dugg si gouvernement bi dañuy def seen déclaration de patrimoine mais déclaration de patrimoine boobu doo gis OFNAC publier ko loolu mënoo ko justifier président ki nga xam ne moom mooy la première institution de ce pays bu defee déclaration de patrimoine dañ koy publier ministre bu defee déclaration de patrimoine kenn di ko publier directeur bu defee déclaration de kenn di ko publier ça pose problème gis nga bu fekkoon Amadou Ba à l'époque bu muy nekk premier ministre bu génnee gouvernement xam parce que yow tey boo nekkee gouvernement six mois après boo génnee gouvernement bi am droit dem def sa déclaration de booy dugg ak booy génn yépp booy génn da normalement OFNAC dafa waroon a publier ne kii kat bi muy dugg lii la am bi muy génn lii la bu ko defee Sénégal yi sax au moins débat bi nga xam ne moo fi posé nii du fi posé ñu naan des fonctionnaires milliardaires kii dafa sàcc kii dafa def lee bu fekkoon OFNAC def na li fu war a def je pense que loolu yëpp duñ ci egg donc il e temps que ñoom tamit ñu revoir seen texte yi xoolaat bu baax a baax ministre wala directeur bu ñuy dugg li ñu am bu ñu ko déclaré bu ñuy génn bu ñu génnee ba nga xam ne jeexal nañ seen fin régime wala seen fin de mandat OFNAC ñëw ne kii kat période bi mu fi nekk de 2005 à 2010 wala de 2015 à 2020 lii la fi accumulé lii la fi am lii la fi am pour éclairer la lanterne de tout le Sénégal xam ne débat bi nga xam ne dañ diw sàcc na suñuy milliards diw yóbbu na suñuy milliards diw diw na loolu débat boobu jeex fi une de débat public c' est intéressant moo toog fii di xastante jàppal Cheikh Bara Ndiaye jàppal Bougane jàppal keneen ak keneen ak keneen on n'a ça c'est ça qui fait le charme de la démocratie États-Unis d'Amérique bu ñu ko rawee c'est grâce à ça seen candidat yi Kamala Harris tout comme Donald Trump chaque jour dañuy continuer def ay débat pourquoi pas au Sénégal c'est important Cheikh Diagne merci beaucoup pourquoi pas au Sénégal et peut-être les Sénégalais de de savoir euh, Ibrahima ce qui se par rapport ak sunu actu commentée d'aujourd'hui bi am na solo man fu may rek mooy débat public bi moom nañ ko yóbbee stade Abdoulaye Wade rek def ko ticket yu cher xam naa ne dina fees Sénégal dina si gagné ndax loolu rek la ci Sénégal mën a gagné. Kourouzita démb parce que j'étais témoin maa ngi woon ci conférence de presse bu Amadou Ba euh, ñu mën ko jàngat ci ay forme yu yu bëri bokk na ci forme euh, ci ci ci ci kii bi sur la forme suñ ko ci dee jàngate gis nañ li nga xam ne moo fa xew parce quoi qu'il arrive bëri woon na ay militants yoo xam ne ñëw nañ assister ko parce que maison euh, du parti ku ne xam ne nu mu yaatooyee ci biir mais dafa fees ba amul kenn amul fu mu taxaw donc euh, on peut dire que woote bi mu woote ay militants wuy si nañ ko mais message bi mu bëggoon jàllale aussi lu sénégale yi doon xaar la parce que quoi qu'on diir dire yàgg nañuy wax que Amadou Ba quoi mënul génn répondre li nga xam ne ay accusation la yoo xam ne teg nañ ko si kawam moom ak yeneen ministre que muy Mamadou Moustapha Ba Abdoulaye Daouda Diallo ba ci président Macky Sall bi nga xam ne moom sax nga xam ne nekkul Sénégal génn na indi ci ay ay ay réponses démb nag te le moment opportun pour lui pour mu mën a def ay éclaircissement ci ay points yu bëri parce que sénégalais yi soxla woon nañ ko quoi qu'on puisse dire et démb loolu la loolu lañ gis mu def bëri na ay réponses nag yoo xam ne indi na ko. bëri na ay jàngat yoo xam ne tamit def na ko ci gouvernement bi nga xam ne ñoo fi toog mais Cheikh mu ngi koy wax tout à l'heure euh, buñ fekkee ci ci ci côté politique la ñuy wax wala dañ koy dañ koy analyser du point de vie politiquement ci ay kàddoom mënoo ko sax jàppee comme un politique parce que de un peut-être doon nañ xaar beneen ton boo xam ne moom la amadu Ba di indi mais doon nañ xaar aussi ay critiques yu gën a sévères yoo xam ne peut-être dina ko critiquer pour euh, euh, mouvement président kii bi fi nekk gouvernement bi fi nekk mais loolu yëpp gisuñu ko lu ñu gis mooy amadu Ba bi ñu xamoon mais nag euh, nit lu mu metti metti da nga koy nangul peut-être ni mu mel te ku xam amadu Ba xam ko ci tey ku ko xam xam ko ci du wax loo xamante ne dañu naan amadu Ba wax na nàngam donc loolu c'est sa personne Euh, depuis nga ko xamee ba léegi ci loolu nga ko xam mais kenn du ne xamul politique parce que ku jaar parti socialist ñu formé la fa nga dem ànd ak Macky Sall durant presque lu bëgg a mat douze ans je pense que ne am na loo xam ne xam nga ko ci politique. donc peut-être sa démarche c'est sa démarche politique moom lay moom la nekk di mëne mais ci réponse yi li ci am solo indi na ci ay tontu yu bëree bëri mais man damay wax ne dafa am benn wax bu am solo bu mu wax. mooy que nañu def déclaration euh, de patrimoine moog mm-hmm. Ousmane Sonko. Mm-hmm. pour ñu mën a xam ay bien moom fan la toll xam ay Ousmane Sonko fan la toll. parce que gis nga sénégalais bi dafa am benn regard bu mu am ci ci Amadou Ba que ñu wax la ko ko ñu ñàkk la ko wax mooy que ne c'est un multi multimilliardaire noonu la ko sénégalais yi di xoolee mais moom ci ay propos comme si. dafa jàpp ne ni ko nit ñi di xoole ak richesse bi ñu jàpp ne moo nekk ci moom nekkul ne loolu lay dunde mais mu ngi sant yàlla donc loolu après nga yokk ci ne nañ def déclaration de patrimoine ñu publier ko su boobaa je pense que ne loolu c'est un défi boo xam ne lancé na ko Ousmane Sonko leneen liñ ciy yokk mooy que ku gis poste Ousmane Sonko ci minute yi mu ko defee parce que euh, conférence de presse bi dafa jeex rek nga gis mu def poste ça montre que ni mi ngi doon seetaan Amadou Ba. Mm-hmm. et li mu wax mooy que ne enfin Amadou Ba génn na parce que da doon fay ay nit ñu koy waxal parce que daal làkkatu woon ci rukk nunguwul indi ay éclaircissement mais enfin génn na génn na mais tontu na ci tontu yi mu indi Amadou daf ko ci lancé waa defi mooy nañ dem débat public. débat public bi nag bëri na ay polémique ku nekk yaa ngi wax dañu war a dem débat publique mais li may wax rek gis nga dëkk droit la ñu nekk dañu am li may wax euh, constitution boo xam ne moom moo ñu tëgg dañu am code électoral dafa am ay charte yoo xam ne moo régir ñun suñu suñu réew te ci loolu man mënuma d'accord ñu war a dem ci élection législative avec quarante et quelques yoo xam ne ñoo war a dem ci élection yi ñu ciy tànd ñaar ci ñoom di leen defal débat public loolu campagne la campagne déguisée te dañu bañ bay médias yi sax dañu leen wax ne am na loo xamante ne nii waruñu ko def muy lu jëm ci campagne bi di soutenir benn candidat wala benn list di am yoo xam ne dañ koy def pour di leen defal du ay campagne ak du genre je pense que ni ci contexte boobu mënuñu ci choisir Amadou Ba di ci choisir Ousmane Sonko pour que ñoom ci seen ay bëgg-bëgg nañu def débat public c'est pas le moment opportun parce que su boobaa égalité des chances dootu fa am gis nga fi ñu toll nii ak liste bu mu mën di doon muy list bu Cheikh Diagne bokk ak bu keneen bokk ñoo ci yem peu import liste yëpp a valable parce que ci ay ay ay ay conditions yu normal lañ ko dugale dañoo joxe caution comme ni ko nit ñi joxe nekk ay citoyens sénégalais bëgg a nekk ay député à l'Assemblée national kenn xamul ban projet mooy bi palpable pour le Sénégal kenn xamul ban projet mooy bi gën mais li am solo mooy. c'est un boo xam ne Ousmane Sonko lancé na ko c'est juste pour montrer les Sénégalais ni moom pare na pour jàkkaarloo ak Amadou Ba malgré Amadou Ba mi ngi leen di traiter chaque jour que ne samay élève lañ li may wax Cheikh tout à l'heure ñuy tàmbali si émission bi ma koy wax que Amadou Ba dafa nekk di leen xoolee ba tey que moom moo leen jàngal. e c'est c'est pas ce qui compte actuellement gis nga li Cheikh wax tout moo ci am solo mooy nit ki di nga ko jàngal mu raaw la. Mhm. nit ki di nga ko ëpp xam mu raaw la foofu la ñu toll. mun mënuñu même su leen jàngalee mën nañ leen comparer politiciens la ñoom ay politiciens lañ leader la ñoom ay leader lañ nekk na fi ministre nekk na fi ministre des finances nekk fi premier ministre mais actuellement kii moom mooy premier ministre et actuellement moom mooy sa adversaire phare parce que élection yi ñu jógee ñoom ñoo nekk. ñoom ñoo gagné woon élection bi avec 54 pour cent mais peu importe Amadou Ba moo nekkoon deuxième ci élection présidentielle bi donc kooku quoi qu'on puisse dire jusqu'à la preuve du contraire wala ñuy dem ci élection yeneen tendance génn moom moo nekk deuxième ci ginnaaw Bassirou Diomaye fay donc ci contexte boobu ñooñu mënoo leen jàppee ay élève élèves yi nga leen di jàppe ñoom dañuy jàpp ne yow yaa nekk di jouer ak sénégalais yi mais ñoom xoolewuñu la élève jàppeetuñu ko comme un un un parce que bu fekkee nit ki daf la jàngal am lu def ci yow am foo leen jaar je pense que ne ci say cadre dinañ ko ci mën a gis te gis nga ces derniers temps wala bi ñu génnee prison lañ gis que discours yi changé Ousmane Sonko di wax lu jëm ci Amadou Ba mhm. muy nekk ay tâches mais bien avant ñun ñëpp on était témoins lépp lu Ousmane ko doon wax gouvernement Macky Sall daf ci doon épargne amadu Ba parce que am na bët bu mu ko doon xoole mais actuellement situation bi moom moo obligé Ousmane Sonko à ce que malgré tout dina wax ay mbir yoo xam ne day jëm ci Amadou Ba pour taasal ko parce que ci politique lañ nekk lépp ci ay stratégie lay dépendre seen ay stratégie xam nañ ne Amadou Ba il deuxième am na benn électorat quoi qu'on puisse dire parce que gis nga bu ñu nax suñu bopp ci élection bi ñu jógee jàppale bi Amadou Ba waroon am amu ko saa du loolu duñ ko duñ ko duñ ko nii parce que bu ko amoon peut-être war nañ mën a dépasser fii wala mën nañ dem deuxième tour mais amul jàppale bi man dama jàpp ne ci ay propre moyen la demee élection mais 34 pour cent yi nga am c'est sa base légale donc base boobu buñ ko nier donc loolu Ousmane Sonko en est conscient raison pour la laquelle mu nekk di di ko di ko démolir mu nekk di damm ay tànkam mu nekk di ko def ay mbir yoo xam ne da koy gën a delloo ginnaaw sénégalais yi da am beneen boo xam ne dañ koy am ci moom donc li ci am solo mooy peut-être défi bi loolu politique la mm. mais ci ay normes légales mais ci constitution Sénégal ci suñu ay charte àndul ak égalité des chances te lu ñu war a xel la parce que tous les quarante listes valent te sénégalais bi xamuñu kan la ci choisir nekkul Amadou Ba moom mooy leader wala Ousmane Sonko moom kase moom mooy leader wala seen ay liste kase moo am importance liste yëpp am importance su ñuy dem ci débat public ñoom ñëpp ñoo ciy dem ensemble su boobaa sénégalais yi dinañ mën a àtte mhm. résultat. donc Ibrahima rapidement euh, public itam bu mënee am euh, nekk après les élections législatives du effectivement loolu laa loolu laa gëm lu ñu gëm la ñoom ñaar te pare nañ pour def ko nañ bàyyi ba élection yi jàll su boobaa amatul campagne déguisée amatul dara dañ koy def ci seen propre gré sénégalais yi dinañ juger ñu jàkkaarloo mu nekk maître ak élève ñu war a jàkkaarloo su boobaa nag peut-être suñu paree dinañ xam kan moo kan moo gagné mais gis nga booy dem ci combat même ci football sax mm-hmm. wala nga match nawetaan kon match nawetaan kon comme on a l'habitude de de les suivre tout gis nga engouement mais tey Ousmane Sonko ak ak ak ak Amadou Ba ci débat public bien avant ñuy dem ci débat bi Ousmane Sonko gagné na ko. gagné na ko ci côté yëpp est-ce que débat dina am te débat sax est-ce que dina am mais même su doon am. ci bien avant ñuy jàkkaarloo gagné na ko ci côté yëpp. parce que de un public Ousmane Sonko moo ëpp doole bu Amadou Ba ba pare. la dernière fois dafa wax lu am am importance patriotes yi yéen yéenay borom réseaux sociaux yi te jour boobu dinañ maintenir réseaux sociaux yi tel de telle sorte que lu Amadou Ba wax du am sens lu Ousmane Sonko wax mooy ëpp sens. mais ça sera mais autre chose autre boobu moo ci am solo Ousmane Sonko c'est un beau parleur. loolu ku ne xam na ko te Amadou Ba kenn xamu ko ci wax donc est-ce que bu ñu fay teg ay chiffres wala moom muy wax ci lu technique sénégalais yi dinañ ko consommer parce que sénégale bi xam nga lan la gën a mën a consommer mooy li nga xam ne loolu la gën a comprendre li ñuy gis mooy yaa def nangam seen gouvernement yéen def nangam et su boobaa si foofu la utiliser pour mën ko démolir pour mën ko si gagner baa débat public bi li ci am solo mooy ndax dina am am déet su dee am nañ baay ba élection yi jàll nañ ko yóbbu stade Abdoulaye Wade mm-hmm. xam nga lu tax ma wax la stade Abdoulaye Wade Sénégal ci loolu rek la ciy gagné mooy seen débat d'idées mooy que peut-être ñu remplir stade ba dagg ay ticket sénégalais yi bëgg a seetaan dem seetaan ñu teg leen si digg pelouse bi ñoom ñaar ñu jàkkaarloo kenn di leen animer su boobaa je pense que sénégalais yi dinañ ko dinañ ko dinañ ko gën a mën a consommer et dinañ ci gagné dara. <laughs> <laughs> merci beaucoup Ibrahima euh, Madiama Diouf ñu dalalaat bu baax a baax si sunu émission 27 fii di si si chaîne bi di Evidence TV. Euh, ce qui se rek par rapport ak euh, sujet bi ñuy waxtaanee tey en tant que citoyen ñu gis ni kii di Ousmane Sonko défier na Amadou Ba ne ko ñëw ñu waxtaan un débat public comme Cheikh ni mu ko waxee débat d'idées moom lañ soxla sa gis en tant que citoyen ak yan attente moom nga ci am. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyuwaat bu baax. Hmm. di wax que Amadou Ba donc il devait être fier si am élève comme ni ñu ko Ibrahima waxee élève bu dem ba. réussir réussir quoi mm-hmm. donc xam nga il faut être euh, il faut il faut ngay fair play donc euh, ñu xalaat que ne Ousmane Sonko tamit comme que yàlla tamit xeex na ba yàlla jox ko ndam jox leen ndam sax laay mën a wax donc euh, war nañ gën a mën tamit di tolérer yu bari. waaw mm-hmm. bàyyi mu sedd quoi mais toléré parce que Sénégal mm-hmm. comme gars yi naan benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar effectivement yàgg nañ di ko dégg war nañ pour man a dépasser euh, yenn affaires yu bari mm-hmm. ñuy xool naka la ñuy organiser woo ba nga xamante ni dañuy jéem a defar Sénégal ñun ñëpp donc ku sàcc nag xaalisu ak yooyu yooyu yeneen débat la yoo xam day laaj ay enquête ay poursuite xamante ne bii du rôlu Ousmane Sonko effectivement donc du rôlu Diomaye Faye tamit ñoom ñoom ñooy njiit yi mais am na ñu ñu teg ci yenn bërëb yi pour ñuy saytu yooyu. effectivement te tamit nit bu ñu ko joxee pour man benn benn charge. Hmm. dañ ko war a mën a may tamit mu def benn exercice. Hmm. sama xalaat rek laay wax parce que man moom <laughs> du ma ne je suis apolitique mais. topp ma politique comme ñeneen ñi nañ koy toppee. mais hmm. maa ngi déglu maa ngi suivre maa ngi dégg maa ngi si réseaux sociaux yi maa ngi xam li xew. donc war nañ ko mën a may benn exercice. du genre exercice lu ma bëgg a wax mooy euh, du 1er janvier au 31 décembre. ñu xam léegi naka lañ koy évaluer ñu xam ne waa ji nii def na li mu war a def wala warul deful lu mu war a def. Mhm. quant à nag euh, Sénégal fu mu toll nii instant bi si wàllum politique wax ji ak nu mu bëree nii yëpp. Mhm. pour man ñun ñëpp dañu war a defaat benn taxaw seetlu. Mhm. ñun ñëpp ñu xoolaat suñu bopp. xam ne Sénégal euh, ñu ñëpp ñoo ko mën defar ñun ñëpp ñoo ko war a defar du Ousmane Sonko du Amadou Ba Amadou Ba bu mu xewee yàggul. Ousmane Sonko bu mu xewee yàggul te boobu ba léegi politique mu ngi am Sénégal. Euh, professionnel bu ñuy wax ñu xool li ñuy wax ñu bañ di di di terroriser population bi. Mhm. ci yenn débat yu xamante ni dafa dafa c'est gros mots ay wax yoo ay mag ay kilifa yoo xam dañ leen jox ay responsabilités yu diis mooy yor ay ay ay nit gérer ay doomu aadama. kon ñooñu war nañ mën a xool léegi li ñuy wax ba nit ñi bu ñu ko déggee ni ñu koy interpréter ak ni ñu koy waxtaanee day nekk lu positif day nekk loo xamante ni nit ñi dañ ci mën a tirer ay solution waaw man loolu laa am ci loo nga xamante ni wàllum politique moom. loolu laa loolu laa bëgg a clarifier quoi. mais mm-hmm. quant à gars seen problème personnel politique yooyu ñun moom góob ma ñun ñun ñoo koy lijjanti góob ma ne a koy lijjanti. voilà mm-hmm. merci. merci beaucoup merci beaucoup Madiama Diouf. chers vous êtes toujours dans votre émission Budget votre chaîne préférée di l'évidence te ngeen wéyal abonnement yi ak partage comme je le dis très souvent émission bi tamit du ñun dong ñun ak yéen la euh, di leen joxe seen gis-gis via les commentaires c'est important Cheikh euh, Ousmane Sonko et tourne le dos à Sàmm Sa Kàddu démb gis nañ euh, poste kii di euh, de ci Fall ne que demoon na seete kii di euh, Ousmane Sonko Cheikh on voit les photos ñëpp di ko publier et tout Déthié Fall nee na après dina def sortie incha allah pour clarifier loolu noonu yëpp sànq si revue des titres Ibrahima Faye maa ngi dégg mu naan génn Sàmm Sa Kàddu ak Cheikh nan ak naka moom la demee Cheikh sa chronique aujourd'hui en fait mu mel ni démb c'était une journée remplie de d'événements gis nañ fi ñu placé sous mandat de dépôt Bougane Gueye Dany à Tamba la soirée Amadou Ba génne di def conférence de presse. Mhm. Ousmane Sonko génn tontu ko par un tweet. dans la nuit ñu gis Déthié Fall moom tamit def benn tweet ne def doon waxtaan ak son frère et ami premier ministre Ousmane Sonko. mu mel ni mhm. y avait beaucoup d'événements Livre Rouge tamit génn def déclaration. ma kon ñu boole si Livre Rouge ah, donc li may wax noonu mu mel ni y avait démb yu xew. mais Déthié Fall ça se voit que qu'il est le il est le poulain nee ça se voit qu'il est le poulain de